bisimilah rahmaani rahim mbokk yu yi seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Eh, ki nekk ci seen kanam di wax ak yéen mooy Mourtada Diop eh, doon koo xam ni kii day yëngu ci làmmiñu réew mi rawati ci làmmiñu wolof noo ngi fekk baax dëkk bu ñuy wax saate gu ndaw ca Kajoor tàmbalee yëngutu ci mbind mi ci ati junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñaar fukk ci at yooyu lañ tàmbalee yëngu ci e, mbindum e, làmmiñu réew mi xaw nanoo dox nag aslëf ci biir réew mi ngir euh, déglu nit ñi ci làkk wi ñuy làkk làmmiñu réew mi déglu leen waaye jiima euh, dugg ci li xelul làmmiñu réew mi loolu euh, wër nañ ci réew mi lu bare bare bare bare Euh, ngir xam ko yu ci bari bañ koy wër du oto lañ yoroon waaye tànk lañ ko doxe maa ngi doon wax sàng ak sama benn xarit ni ko mille neuf cent soixante-quinze euh, bi ma doon gëstu ci wàllu googu doxe naa fii ba Casamance ngir euh, bu surtout ci wàllu Saalum ngir xam lu bari ci làmmiñ wi kon ci tegtal euh, loolu lay <laughs> mën a wax ci man euh, lu ma war a xiir ci ma bind euh, yàgg déglu nit ñi ñuy lakk làmmiñ wi di yàq làmmiñ wi di yàq baat yi ci xelum làmmiñ wi ma gis ni kon koo xam ne kii am nga as lëf soo xam ci wàllu làmmiñ wi war ngaa bind damay wax ni doonte kon li ngay bind na koy binde dëppoowul ak ni ñu tërale waaye xelum làmmiñ wi fexeel ba génn ko ci loolo looloo euh, nu bind euh, bind nañu ay woy mooy li ñuy wax taalif téere bii ma yore nii euh, moom mi ngi tudd teqam talaakoonu taalam saate di wax ci baati wolof yi nga xamee ni dañ leen faral di yàq di jaawale benn bu nekk ñu jaawale ko ba mu xaw a te fekk du noona ñu wut ci lu xaw a tolloog junni ak nangami baat yoo xam dañ leen di jaawale ñu jéem a indi teqamtale baat yooyu ba nit ñi war ko mën a dégg euh, loolu ay at lañ ko def jombul nag des na ndax xam ngeen ni làmmuñu wolof ba muy jógee misra di ñëw fii diggante ba mu jógee misra ba ñëw euh, ñetti téeméeri at lu jiitu juddug yonent yàlla Isa mi ngi fi woon toogaat na fi yeneen juróom-ñaari téeméeri at yoo xam ni wenn làmmiñ raxuñu kon loolu lañ fa doon wax lépp kenn mënu ko tënk ci benn téere boo xam ni xët yu limu yu néew la ba taxit liggéey boobu des na waar bu yaato yaato yaatu woo xam ne wi nit ñi mën nañ cee bay wax ni aw làmmiñ kuñ ko xañ ku ne réere nga sa bopp ndax damay faral di wax ni képp ku wax yàq sam xel képp ku wax ñu naw la mbaa ñu xeeb la lalay may nag nga mën a wax ñu naw la mooy wax jangay wax làmmiñ wa ngay wax nga fexe ba xam xel ma ndax làmmeñ day dund te luy dund amum xel bu fekkee danga nga bëgg a jëflante ak moom ca safaano ak xel ma la ngay wax du sotti ba taxit euh, noo ngi woo nit ñi bindkat yi waaye ñëpp ñi nga xamee ni làmmiñ dañ leen ñor ñu jiima gëstu ci wàllu googu ndax yeneen làmmiñ yi ma tuddee làmmiñu rey doon moo xam bu arab bi la moo xam bu tubaab bi la ak bépp xeetu tubaab nag ni ñu def mooy danoo fekk sunu làmmiñ ñu xeebal nu ko ba nu xeeb ko ñu jox nu seen bos ba ñu jël ko bu ko defee nag ñu logal ñu seen cosu làmmiñ ñu koy log-logee defe ne xam nañu fekk bàyyi nañ booba sunu mbatit ba nu bàyyee sunu mbatit nag ba jël mbatitu ñeneen lañu soppeeku sunu démb réer ñu sunu tey xajam sunu ëllëg doon e, lu nu këriis ba tax faw nu gëstuwaat sunu xelum démb ci làmmiñ wi góorgóorlu ci nampal ci sunu njaboot rawati ci xale yi ñu dugal ko ci biir daara yi waaye dugal ko yët ci jàngu yi daara yi mooy fii jànge alquran wala làmmiñu arab fa ñuy jànge làmmiñu tubaab ak bépp xeetu tubaab nag kooku jàngu la tudd tuddul daara damay dégg ñu naan daara ju mag yeeg daara yu ndaw yeeg daara yu digg dóomu yi yooyu duñu ay daara li fi xew ba xew fi mooy ay jàngu lañu lu ko waral xam ngeen ni làmmiñu arab moo fi jiitu bu tubaab ba ñëwee dañ fa fekkoon ay daara ña jëkk a ñëw ci ñoom samp ay jàngu di ca wootal nit ñi di leen jàngal loola nag moo dem a dem ba ñu réere loolu jàpp ni baatu biñ tuddee église moom mooy jàngu fekk lañ fay jàng muy école ba nga xamee ni moom la ñuy jàngee mooy jàngu kon ñu góorgóorlu bee sunu làmmiñ yi ñu dugal ko ci kii bi ci eh, jàngu yi nañ ko dugal ci jàngu yi ndax bu fekkente ni da nga jël genn gone nga bëgg ko ni ko am nga huit livres mathématiques cinq livres grammaire deux livres lecture lépp ñaata la ci nga walaaj ko ci tubaab li njëkk mooy faw mu jàng làmmiñu ba xam cinq mooy lan xam plus mooy lan xam égal mooy lan te loolu mën na ko jëral ay at boo kooxoon ci làmmiñ wi nga xam ni moom la namp da daal di tontu léegi li ko waral mooy nun lépp lu ñuy dox ci ay waññi lay turu la tëdd ak ay màndaxe ci la tëdd ba tax euh, maa ngi woo ñi nga xamee ni ay xeltukat lañu muy intellectuel ñu wëlbatikuwaat ci sunu làmmiñ yi xam ni na ko góor ga doon waxee am réew mbaa mbaa aw askan kenn mënu ko tabaxee ci làmmiñu jàmbur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu